اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen mbokk yi di leen ziyaara bu baax a baax mbokk mi wax ak yéen nag mi ngi tudd basiiru Sakho euh, di coordonnateur concours Sénico ci région Diourbel di coordonnateur concours Sénico it ci département Mbacké encore bokk ci série bi it série série euh, nationale jury national bi nga xam ne ñoom ñooy atte xale yi ci concours bi. Euh, waaw euh, comité bi moom ci njiitul sëriñ Xaadi ñu ngi taxaw ànd ak dënd bu yaatu bu feex ak mbégte mu rëy a ci. tertu suñu doom jooju nga xam ne Touba la jóge te jël ndam lu rëy rëy loolu ci àdduna bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne euh, euh, concours boobu moom concours international la boo xam ne lafay fay daje ci ay réew kenn xamul nu mu toll. looloo tax nag ñun ñi nga xam ne ñoo féete fii euh, ñu bàyyi xel gàttandu ko tertu ko. ànd ak moom it ci sëriñ bi euh, mook ñi nga xam ne ñoo jàll démb ci concours Sénégal bi waaw loolu daal xam naa ne loolu lañ ci gën a wax ndax ñun fi ñu gën a màtt ci jëmee ci wàllu concours Sénégal bi ci la ci la ci la kii ndax loolu ñun ñoo ko yor fii ci région bi. Euh, organisation bi comme noonu nga ko waxee euh, xaw nañ ko miin ndax yaakaar naa ne ren la ci. juróom-ñaari at yoo xam ne ñu ngi koy def sélection bi itam sélection la boo xam ne ñun dañ ciy bokk ci biir ndax dañuy bokk ci ñi nga xam ne ñooy àtte bokk itam ci ñi nga xam ne ñoo ko jiite dañ ko séddale ci région yi reson bu nekk dañ doon def ne bu amee ñetti département ñu jël fa ñetti nit ci Sénégal reson bu nekk su amee ñetti département ñu jël fa ñetti nit ñetti nit ñooñu nag dañ leen di jël ci dañ leen di jël ci euh, dañuy am su dee ci départemental yi la faaw nga am 65 points doog a mën a génn ci départemental su dee régional faaw nga am 85 points doog a mën a génn ci région bi même région bi bu ko joxee trois candidats yàlla dogal kenn amu fa 85 points kenn du génn. raison boobu kenn du kenn kenn du ko représenté suñ paree dañuy xool reson yi nga xam ne ñoom am nañ lu ëpp quatre-vingt-cinq points te ñu tànnoon ca lañ war a tànn ba noppi waaye bi ñu xoolee dañuy boole Sénégal gépp xool ñi nga xam ne ñoo ci ëppale ay points ñoom it ñu jël ko mottalee ko raison yooyu nga xam ne ñoo manqué noonu lañuy ñuy sélectionné euh, liggéey bi. ginnaaw xëy na ci euh, waaw Sénégal moom euh, euh, jël na ci ay ay ay matuwaay yu bari wala ay xalaat yu baree bari bokk na ci kër kër alxuraan yi nga xam ne bëgg na koo taxawal ci régions yi am na benn kër alxuraan goo xam ne yaakaar naa ñu ngi ko doon inauguré bërki demb ci Dakar ngir bëgg foofu ñu mën faa def ay formation euh, di fa gën a mën a tàggat ndaw ñi di leen gën a mën a jàppale bu baax a baax ci wàllu njàngoom alxuraan te noonu mu ko defee foofu noonu la ko bëgg a defee ci région yëpp yaakaar naa ne loolu boo amee ndimbal lay doon ci gën a yaatal liggéey bi ni ki noonu tam bokk na ci ay procès fexe di yoon ni ñoo xam ne ñu xereñe liggéey bi la ci dëkk yi nga xam ne xerañte ga xaw naa des ndax soo dee wër danga am dëkk yoo xam ne daanaka même résultat yang nga fa fekkoon daaw moom nga fay fekkat ñooñu dañoo aaja ay jàppale aaja ay dimbale ñu ba tey it seeni ko am na ay xalaat jël ay nit ñoo xam ne ñu xerañ lañ ñoo xam ne danañ mën dem ci dëkk yooyu di leen gën a jàppale ci liggéey bi bu baax a baax donte xam nañ ne fu mel ne fii moom liggéey bi wax dëgg yàlla ñoom jàmbaar lañ ci te jaral na leen bu baax a baax moo tax résultat yi ñu gis ñu am ko muy Touba kon moom mel na ne ndax man mii de wax ak yow daara ji ma nekk lu mat 400 personnes am fa daara ja amut kenn ku fay fay benn dërëm Sénico mooy financé lépp mooy fay jàngalekat yi mooy euh, dundal xale yi lu mat 300 personnes ña nga fa dëkk moo leen di dundal amaat na ko fii ci saateet daara boo xam ne lool lu mat ñett téeméeri xale yooyu ña fa lu mat téeméeri jigéen ña nga fa loolu ba tey it Sénico moo fa def encore kon dafa mel ne am na ay jéego yoo xam ne teg na ko waaye nag am na yeneen xalaat yoo xam ne tegaat na ko ngir bëgg gën a mën a jàppale alxuraan gën a mën a jàppale ñooñu alxuraan. waaw loolu de ñu ngi ci am yaakaar ne. Euh, mënta ñàkk ndax koo xam ne dafa dem bitim réew yëkkati fa sa drapeau sagal réew mi yaakaar nañ ne état bi bëgguñ lu dul ndamul Sénégal bëgguñ lu dul turu Sénégal yëkkati ko te ñoom loolu saa yu xasee ba am saa yuñ jëlee foofu ay ndam ndax maa ngi koy seetlu rek ci ki jiitu woon ci. Euh, Malaysia kooku se euh, dañoo wax ne bis boobu Google liñ fa tàppe di seet Sénégal moo ëpp leneen luñ fa tàppe ndax ñu baree bari xamuñu woon Sénégal moo tax ma jàpp ne nag ñooñu nga xam ne ñooy yëkkate raayo Sénégal noonu mënta ñàkk état bi am ay taxawaay ci ñoom waa nga xam na nekkul loo xam ne luñ dogal waaye am nañ yaakaar ne war nañ danañ leen taxawu daal ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله ولئن اتبعت تحت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن ياتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرين نك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك أو نتوفينك يتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا ناتي الأرض ننظر ننقصها من أطرافها والله يحكم لا ngir jot sunu ay vidéo di ngeen fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës cloche bi bokk ci programme bi national international